mooy sopp nañu te ngëneel la booy tàmbalee jàpp nga wax bismillah loolu rek mooy àtte bi foofu wa kawnul inaa yi nekkum ndab la xalaa yomini yi ci day joram am kanu moo gën a jàppandi la xooñeel ko fii tanaawuli yi ci yóotoom nga dañoo sopp bu fekkee da ngay jàppi ndab lu ubbi nga xam ne ngay as mu féetale ndey joor ndax moo lay gën a jubu ci as bi bu fekkee da ngay jàppee nag lu mel ni sat la ba baraada yooyu nag nga xam ne moom doo as kon ñu sopp mu féetale càmmoñ ndax càmmoñ moo lay gën a jubu daa bëgg wax nag léegi njàpp fa mu tàmbalee ba fa mu yem moo tax mu delluwaat wax ne ba yeb daw dana tàmbali ba yax si lu te muy raxas yedd yi ñaari loxoom ya xabla an yuuti xilahuma njëkk mu leen dugal ñoom ñaar fil inaay ca ndab la talaasa ñetti yoon li nga xam ne moom moo njëkk njëkk ci njàpp mooy raxas loxo yi ñetti yoon ba ci tikku jara yi loolu sunna la bu fekkee ndab la daaw bi ku nag kon bala ngaa tàmbalee as niñ ko waxee woon nga dëggal ndab la ba raxas loxo yi ñetti yoon li gën nag mooy nga raxas loxo ndeyjoor bi ñetti yoon mu beru raxas bopp càmmoñ ñetti yoon mu beru boo ko boolee mel ci doom benn teewul nag boo boole woon ñaar loxo yëpp raxas leen benn yoon it du tee sunna si mu am fa inkaana dem nekkoon na xadd baala di saw aw taxaw wata wala mu xayta xasala mu raxas daalika loolee min fu ci moom su ma tawat daa topp mu door a jàpp bu fekkee nag dafa demoon ci wana wa saw wala mu xayta te loolu tax ko ba tey kon na ko raxas balaa tàmbalee jàpp ndax bu tàmbalee jàpp mbaa mu jàpp noppi itam fekk sawukaayam te muy góor xam nga ne mu maase nañ ci ne bu laaleeb sawukaayam ci lu xong ci téng yi ba baaraam yi jàpp ma toj kon nag bu njëkkee jàpp ba noppi te raxasagul sawukaay ba itam faaw du sañ a julliwaale sobe si te buy raxas sawukaay ba jàpp moomu toj moo tax mu ne kon ndegam sayu woon na mbaa xayta ji woon na na raxas loola ba noppi door a jàpp de sax bu ko sobe si taxoon feneen nit ki ci wóom bu ko neexee jàpp noppi door a raxas nag wóom ba nga xam ne moo tax ko sobe ndax foofu moom laal ko bëggu ciy tooñ jàpp su ma yudoxil topp dana dugal nag yàdd xoo loxoom fil inaay ca ndab la fay axusu te muy jàpp mooy te muy jël alma ndox ma fayu mard meddu te muy galaxndiku faaxu gimiñam nga talaasan ñetti yoon min xarafatin ci ab tànk yin waaxidat mu di benn incha ndeem soob na ko aw salaasi xarafatin wala ñetti tànk yin xam nga daa wees raxas loxo yi mu lay wax la ci topp mooy galaxndiku galaxndiku mooy nga seex ndox mi yëngal ko yàbbi ko moom nag taam nañ nga def ko ñetti yoon moo tax mu da ngay tibb ndox mi daal di koy dugal ci géeñ gi daal galaxndiku ñetti yoon bu la neexee nag tàng benn tàng dong galaxndiku ci ñetti yoon bu la neexee itam def ñetti tàng tàng seex lépp muy benn dellu tàngaat seex lépp muy ñaar ba ci ñetteel ba loolu nag moo gën dana ko leeral léegi wa inis sànk ndeem soccoo na bi usbu yi ci baaraamam faxasanun kon aj rafet la dañoo sopp lool nag soccu gëneel la loo xam ne ñu ko fonkee daal yéeme na ba yoon ci bi soxne su ma balitoon sama xeet yi jéppi ma kon daa leen digal julli gu ne wala njàpp mu ne ñu soccul ko nga xam ne li ci gën mooy li ngay jël bant bu wow ba bant bu tooy sax moo gën bu fekkee wóoroo socc ba noppi galax ndiku tuur door a tàmbalee njàpp boo bàyyi nag bañ galax ndiku nga jël sa baaram fomte ko bañ itam mu baax ba tey boo yàkkamtee mën ngaa jël lu mel ne borosu nga jël awale ko ci sa say bëñ door a tàmbalee njàpp ndegam danga amul yaatu gu toll ni jël bant su ma yastansiqu topp dana saxlikoo bi an fii ci bakkanam almaa ndox ma wa yastansiruhu tem koy fiiru talaasa ñetti yoon yeej ju xalu dana def yaddaxoo loxoom xala an fii ci kaw bakkanam kam ci xaatu yi ni ki ñandoom nga daa wax ne nag boo noppee ci kalax niku sarax niku moo ci topp sarax niku mooy da ngay indi ndox ba mu jege say bakkan nga ñor di ko ci sa nooyi bakkan mu jàll ci biir bu fekkee da ngaa wóor nga yemale ko ci buntu bi rek bu fekkee wóoroon ñu taamu muy galax ndiku muy sarax ndiku nga ñor di ko bu baax a baax ba mu jàll ci biir li biir su ko defee dugal nga dugal ndox mi ci biir mooy sarax ndiku nga jàpp ci say bakkan nag ci sa baaraamu dee ak sa baaraamu sànnikaay ci loxob càmmooñ ba jàpp ko ci bakkan mel ne kuy ñandu daal di wal loolee mu génn loolu moo tudd fiiru xam ne kon danga koy def yetti yoon bu ci nekk boo ñor di ndox mi dugg nga wal ko mu génn am nga benn am nga benn saraxli ko ak benn fiiru su ko defee nga def ko ba mu ñett yoon nag wayu ji siwoo dana ko doy aqallu lu yees min salaasin ci ñett fil mad madati ci galaxndiku wal istinshaax saraxndiku galaxndiku saraxndiku nag moom bu la neexee def ko lu yees ñett ni ki galaxndiku benn képp ba saraxndiku benn bàyyi wala ñaar waaye ñett yi nag moo gën wala woon ñeel na ko jëm zalika boole loolee fii xarafatin ci ab tànq waaxidat mu di benn wan nihaayat waaye nag yemukaay ba ahsanu moo gën rafet maanaam bu la neexoon nga tàng benn tàng képp boole ci galax ndiku sarax ndiku bu la neexoo itam nga tàng benn tàng def ñetti galax ndiku yépp tàng benn tàng def ñett ñett sarax ndiku yépp waaye loolu lépp gënul li gën mooy da ngay galax ndiku ñetti yoon sarax ndiku ñetti yoon te benn bu ci ne ak tàngu boppam xam ne bu dee sarax ndiku bi da ngay def ci sa loxo lu yem rek loo mën a ñoddi ci bakkan bi mu dugg nga ñoddi lépp nag daal di koy mu génn ne am naa benn daal di koy defaat muy ñaar defaat ko mu ñett loolu moo gën ñi ki galax ndiku fay loolaa ci gënoon dama waxoon ngay tibb ndox mi sax lépp yëgal ko yàgg muy benn nga def ko ba muy ñetti yoon su ma yàqu su topp dana jàpp mooy dana jël almaa ndox ma incha ndem soob na ko biye di ci ñaari loxoom ya jëm yi xam boole seen wa incha ndem soob na ko biye di ci loxoom ba la koy jële alim na bay ndeyjoor fay jaxaluhoo tem koy def biye di ci ñaari loxoom ya jëm yi xam boole seen su ma yanquluhoo topp dana ko toxal ilaa wacc yi jëm ci kanamam nga fa yufrixuhoo tem koy sotti xale yi ci kanam nga xaasilan bi mu ngi aj raxas loxoo ñeel kanam nga bi yedda yi ak yaari loxoom min aax laa jëb xëti yi tàmbalee ci gën jaa kawe jëxam ba xam nga boo weesoo sarax ndikook fiiru raxas kanam moo ci topp mu lay xamal nag kon léegi ndegam daf lu ubbi ko la misaal moom da ngay jékki-jékki tàng ndox ma ak sa yaari loxo yépp bu lay neexee itam nga tàng ndox mi sa loxo day joor del defaat sa loxo càmmooñ ñaari loxo yépp am ndox nga daal di ko yóbbu nag ci kanam nga tàmbali ko raxas mën nga koo sottee ci koy jëba nag tàmbalee raxas li mu wax ni ndox mi da nga koy tànge ak sa ñaari loxo mbaa boog da nga koy tànge benn loxo bi defaat te loxo bi càmmooñ ba ñaan yëpp boo ko am ndox nga raxas sa ñaari loxo yëpp loolu ci ab sart la neexee ndox mi nga tibbi ko sa benn loxo dong raxase ko sa benn loxo dong te du ko tee baax ni mu waxee ne da ngay toxal ndox mi yóbbu ci kanam nga daa mel ne faaw nga tibb ko yóbbu ko ci kanam nga mel ne tey boo ko timbali woon ci ab robinet muy xel li nga raxas kanam gi du doy ah kay fi tool nii boo timbali woon ci robinet muy xel li nga raxas rek ba mu seet du ko tee doy waxadduhoo ab daytalam nag baa nga ne ab limitam moom kanam gi manaabitu shahari rasihi mooy saxukaayi kawaru boppam ga ila tarafi zaqanihi ba ci catul daaju sikkimam ba wa dawar waccihi ak yaatuwaayu kanamam ga kullahoo léppam min xaddi xazmay laxyeyhi tàmbalee ci daytalu ñaari yaxi sikkimam ba ila sudduxeyhi ba ci ñaari kaabaabam ya maanaam kanam gi dañ ko wutal ab guddaay akub yaatuwaay moo tax mu naan limite bi mooy mi ngi tàmbalee ci kawar baaxoo saxee ci jëbi bu fekkee da ngaa leel ngaa leel la ci kaw te saxul kawar doo ko jëlaale ndax bokkul ci kanam gi bu fekkee da ngaa yiif te kawar gi dafa sax jëm si ci bët yi du tee foofu nga raxasaale ko ndax ndegam moom dañuy seet rek ñun fa kawar gi baaxoo saxee ci bopp bi foofu lañu tàmbalee kanam gi kon nag jàpp loolu rek la tàmbalee foofu nag ba ci suuf si kim bi loolu mooy guddaayu kanam gi yaatuwaayu kanam gi daal moom ci gàttal mën nga ne rek moo tàmbalee ci noppee wër ba ca noppale wayu mirru te muy rombale yedda yaari loxoom ya xalaamaa ci la nga xam ne xaara xóot na min zahiri ajfaani yi ci bitti ay mbari bëtam wa asariri jabhati yi ak ras-rasi jëxam wa maag la nga xam ne taxta maarin yi nekk na ci ron sukkam wa mooy sukk bakkanam wa min zahiri an fi ci bitti bakkanam ba jamono yi nga raxas kanam gi na nga ko seetlu foo ci xam ne xaw naa xóot nga nemmi ko ko bu baax nga ne bu fekkee say bët dafa xóot na nga seet suuf mbari bët ya ak kaw mbari bët ya bu sëb jë amee ay ras-ras na nga seetlu ras-ras jër yi nemmi ko bu baax ba dox mu jàll ci biir ba tey loolu mu wax la nekk ci ron sukku bakkanam la nekk ca ron sukku bakkanam nga bakkan bi bu defee copp-copp suuf ga nag ak yàq boobu nga xam ne moo dox diggante ñaari pax yi bakkan yi foofu yépp na ko nemmi ko bu baax a baax ba tey suuf tuñ mi tuñu suuf mi digganteem ak sikkim bi foofu mën naa di ab ruq ba tey sax boo ngebee ni nga mën a ngebee ni la yàlla bindee sax li feeñ ci tuñ yi nga war koo raxas ñoo bëgg yàlla si lu dina raxas wàccoo kanamam nga xëy ki ni talaasa ñetti yoon gis nga mu baamuwaat ne yanqul day doxal almaa ndox ma ilee jëm ci moom dangay raxas dangay raxas kanam gi nii mu waxee ñetti yoon te da nga ci yóbbu ndox ma waaye bu la ndoxam fekk si woon du ko tey baax ni ma ko waxee woon léegi wa yu xarriku te mu yëngal li xiyatahu sikkimam ba fii xas li ba ci raxas kanamam nga bi ka fay ci yaari tengam li yu daaxilaha ngir na ko dugg almaaw ndox ma li daf fi shahari ngir fegu kawar ga limaa ñel la nga xam ne yu laaxi si dana taseeg moom dal maayi ci ndox nee na bu fekkee sa sikkim dafa bariwut kawar nga xam ne ku xool ku xool sa sikkim di seen fa kawar ga saxe kon na nga ko yëngal bu baax ma ndox ma dugg ci biir li nga xam ne kawar ga daal néew nag moom faaw nga yëngal ko ba ndox ma dugg ci biir ndax dañuy bañ boo ko yëngalut kawar gi téye ndox ba du jàll ci biir wala sa xale yi dee di ko war tax li lu xaa xalilug sikkim ba fi mu doy ci njàpp fi xaw li malik ci waxi malik wayu jiri day dawal rek xale xaa ci ko sikkim ba yedda yaari loxoom ya ila axiriha ba ci mu jëm ga loolu mooy sikkim bu fatt bi sikkim bu fatt bi moom du aajo nga di ko yëngal ngir sol ndox ma ci biir sa loxo boo ko awalee ci kaw rek mu daal di baax mu jàll ci la ca topp tumma yaxasilu topp na raxas yeddafoo loxoom ba alyum naa bay ndeyjoor talaata ñetti yoon awis na tey ni wala ñaari yoon yu fiidu dana sotti xale xaa ci moom almaa ndox ma wa yaruguhaa tem koy ragg bi yeddi ci loxoom alisra bay càmmooñ wa yu xalilu te muy xalil asaabixa yedda yi baaraam yaari loxoom ya baxdaxaa lenn seen bi bax din ci leen booy raxas loxo yi da ngay jëkki bopp ndeyjoor ndax njëkki ndeyjoor ngëleel la mën nga koo raxas nag ñaari yoon ba ñett ndax raxas benn yoon daa wóoru ku amu xam te tey moo mën a raxas benn yoon tam doy lu ci ëpp kon na nga ko def ñaar mbaa ñett su ko defee nga ci sot ndox mi daragg bu baax a baax sa loxob càmmoñ ngay raggee boobu ndeyjoor bi su ko defee itam bul fàtte xalil baaraam yi maanaam raxas nga nga raxasoon ba ngay tàmbali ba ci tikku jara yi bu mu tee booy raxas loxo yi nga jëlaadiwaat loolu ba amuwaat ko te xalil baaraam yi bul fàtte jëlaat di tàmbalee cati baaraam ba ci tikku jara boo toll ci raxas loxo da nga koy jëlaadiwaat ba noppi nag xalil baaraam yi mooy diggante baaraam bu ne moroom ma ni ko yàlla sàkke daa sore na nga fexe ba diggante ba diggante baaraam bu ne moroom nga loxar ci ko dañuy bàyyi ñu bañ foofu dara des fa lu tooyut loolu mooy loxob ndeyjoor su ma yàq si lu topp na raxas al yusra loxob càmmooñ ba te zaalika naka noonee waaye bu loxu te muy jot fii himaa ci ñoom ñaar bil xas li ci raxas nga ilal mbir faqi ni ba ci ñaari conce ña yu du xilumaat na leen dugal ñoom ñaari conce ña fii xas bi ci raxasam nga bu ko defee nga jaaj loxob càmmoñ loxob càmmoñ nag nee na na nga defoon boobu ndeyjoor nga koy def waaye nag bu mu doon ci ñoom ñaar booy raxas na nga dem ba ëmb conce ya tuuti waaw loolu gën a wóor ndax yem ca képp daa jafe teew nag waxatu xiila waxees na ne ilayhima yem na ci ñoom ñaar kat xaddul xas li day dal raxas nga maanaam limitu raxas nga ci ko waxi ñooñu falay sa bi waajibun du aji war idxaaluhuma seenu dugal fii ci raxas ga waaye daal wa idxaaluhuma seenu dugal ñoom ñaari conce yi fii ci raxas ga ah watu moo gën a léemtu maanaam moo gën a wér li zawali takallufi taxdiidi ngir dañu coonab yemale ga daa am ñu wax ne booy raxas loxo yi da ngay dem rek ba yem ci conc li kese bañ ko ëmb loolu nee nañu daa xaw a jafe yem ca képp képp daa yombut kon nag nee nañu wax ji gën a wóor mooy da ngay dem ba ëmb conc yi tuuti tam bañ a bari mel ne kuy jàngu tumma yaa aku si sopp dana jël mooy dana jàpp almaa ndox ma bi yeddi yi ci loxoom alim naa bay ndeyjoor fa yu fiqu woo tem koy sotti xalaa baatin yeddi yi ci biir loxoom ba alisra bay càmmoñ su ma yem sama topp dana masaa bi ci maaj ñoom ñaar ra safa boppam da ngay wut ndox mu yees tànge ko ci sa loxo ndeyjoor ngay tànge daal def ci bopp càmmoñ bi yaar yëpp bokk am ndox yaar yëpp bokk tooy nga daal tàmbalee masaa nag day bëgg wax ni ngay masaaye nag léegi yëpp daw day tàmbalee min muqaddamihi ci njëlbeenam nga min awwali manabiti shahari rasihi tàmbalee ci njëlbeenu saxukaay yi kawaru boppam nga waqad xarana te fekk na mu lëkkale atrafa asaabi yadehi jati baaraam yaari loxoom baxdaxaa lenn seen bax den ci lenn xalaa rasi yi ci kaw boppam wa jaxalte mu def ibhaama yi ci ñaari baaraami dayam ya xalaa sudduxa yi ci ñaari kaabaabam ya su ma yadhabu topp dana demee bi yedde ak yaari loxoom ya maasina mbir muy aji masaa ila tarafi chahri rasi yi ba catul kawaru boppam nga mi maaca la nga xam ne yëli dana sësoog xafaafu doqam nga yaa bu ñaari loxo yi tooyee ngay ràbbale baaraam yi daa koy teg ci jëb yi ndax dañoo taamu massa bopp bi tàmbalee ci jëbi de boo tàmbalee woon ca dox nga it ba ñëwaat mu baax waaye nag dañoo tàmmu nga tàmbalee ci ci kawar baaxoo sax yi ci jëbi massa nag wuti dox ga su ko defee nag sa ñaari baaraam yi day bul bul fàtte mu aw ci ker nopp yi jamono yooyu ngay massa nga wéyee nag léegi ba fa kawar nga yem ca dox ga su ma yarul duxumaa topp na leen delloo si ilaa xëy su badaa ba fa mu tàmbalee woon maanaam bu loxo yi demee ba ca dox ga day wañu ko at ñëwaat ba ci jëbi ndax dem bi farata la waña def ko mooy sunna waaye axutute muy jàpp bi ibhaama yi ci ñaari baaraami dayam xalifa udduna yi ci gannaaw ñaari noppam ya ilaa sudox yi ba ci ñaari kaabaabam ya waaw nee na da ngay jël ñaari baaraami day yi mu tegu ci gannaaw nopp yi ndax dañoo bëgg ker nopp yi itam ñu masaawaale ko teewul nag wa kay fa maa masaxa nu mu masaa yi rek kat aji sa axoo mu doy ko isa aw xaba ndee matal na ra saxoo boppam ba wal awul waaye nag anam gu njëkk kee axsanu moo gën a rafet ñi mu wax ne moom la ñu masaay kat nee na daa gën rek waaye nee na du tee boo tooyalu loxo yi ba mu tooy nga masaa masaa ba mu daj rek bàyyiwoo fenn rek mu daal di baax ñu ni wax daa gën rek ma tax mu ne walaw add xala doon ci dugaloon na yedda yi yaari loxoom ya fil inaay ca ndaf la su ma rafaxahuma topp mu yëkkati leen ñoom ñaar mabbu loolu la tey ni mbir mu ñuy yaar yi ñu tooyal wa masaxate mu masaaye bi ci maaj ñoom ñaar ra soxo boppam ba ko it ajji sa axoo mu doy ko nee na bu fekkoon ndab la daa ubbiku nga jekki-jekki dugal ci sa yaari loxo yëpp rek yëpp daal tooy nga jekki-jekki masa masa sa bopp rek ba fépp daj defewoo ko ne ñu ko waxee woon léegi ko it kat du ko tee baax tumma yufriqu topp dana sotti almaa ndox ma xalaa sab baaba tey ci ñaari baaraam yi sànnikaayam wa ibhaama yi ñaari baaraam yi dayam wa insha ndeem soob na ko it xamasa mu nuural daalika loolee filmaa yi ca ndox ma filmaa filmaa yi ca ndox ma su ma yam sax topp dana masa udduna yi ñaari noppam ña zahiruhuma seen bitti wa baatinahuma ak seen biir xam nga boo noppee ci masa bopp bi masa nopp yi moo ci topp léegi nag nee na da ngay def ndox mu yees ci ñaari baaraam yi sànnikaay yi ak ñaari baaraam yi dëy yi ndax ñoom ñoo féetewoo masa nopp yi bu leen neexee sax nga bañ a as ndox ma def ca te jékki-jékki dugal rek say baaraam noonu ca ndab la ndegam ndab daa ubbiku su ko defee baaraam yi tooy tooy bu yees ndax yeesal ndox googu mooy def ndox mu yees ci baaraam yi bala ngaa masa nopp yi sunna la su ko defee nga daal di masa nopp yi nag biir beeg bitti bi li ngay jàkkaarloo booy xool noppum nit da nga koy masa la fiy teg bopp nga xam ne boo doon xool noppum nit doo ko seen da nga koy masa yaa yëpp ngay masa watam samata na masa almar atu jigéen ja kama dakar naa nan tudde woon ni nu wax rek jigéen tam noonu lay masaye watam saxu dana masa xalaa dala liiha ci kaw ay léttam wala tam saxu waaye nag du masa xalal wiqaayati ca kaw musóor ga maanaam jigéen fekkee daa léttu day masaa ci kaw léttee rek noonu waaye nag faaw bu fekkee daa musóorum dana dindi musóor ga du mën a masaa ci kaw musóor ga waaye nee nañu nag bu fekkee boppam da koo létti kawar yu bare bari ba mu dëgër këng këng moom li mu doon doon jàpp dana ko war a dindi bu bu ko dee masaa mu des nag bu fekkoon ne defu ci yenn kawar kawar bopp rek moom la létt noonu ba mu dëgër kooku moom lu mu dëgër dëgër nee nañu bu dee njàppum kese moom du aajowoo dindi wa tuddu xilu dana dugal ya day xaa yaari loxoom ya min taxti xiqaasi shahariha ci ron letti kawaram nga fi ruju wax ya day xaa ci dellu si yaari loxoom ya fil mas yi ca masaaga maanaam bu fekkee dafa lettu loxo yi bu ñu dee dem di masaa bopp bi dañuy aw ci kaw lett yi daa bëgg nag bu loxo yi wàññiku jëm si waat fi nga tàmbalee woon ci jëbi kon la féeti woon suuf ca lett ya na loxo yi aw foofa ci ron lett ya ndax foofa itam tooy tumma yaxu si lu topp dana raxas rijli yi ñaari tànkam ña ya subb dana sotti alma ndox ma bi yeddi yi ci loxoom alim naa bay ndeyjoor xaalaa rijli yi ci tànkam ba alim naa bay ndeyjoor wa yaaru ko xaatam koy ragg bi yeddi yi ci loxoom alim sala bay càmmoñ xalilan xalilan tuuti tuuti baa nga ne ndànk-ndànk yu ay bu xaa dana ko matale bi zalika ci loolee talaata ñetti yoon xam nga boo noppee ci nopp yi ñaar tànk yi moo ci des ngay jëkkee na tànkum ndeyjoor ndax loolu ngëneel la kon ngay sotti ndox mi ci tànkum ndeyjoor bi di ragg rek ba mu set ni wax am nañu ko wax bu ñetti yoon mooy raxas tànk yi ñetti yoon waaye wax ji gën a wóor mooy ngay def ndox da ngay def ndox mi ndànk-ndànk di bomb rek ba mu set moo gën a jàppandi wa insha ndem soob na ko xal la mu xalil asaabihahu ay baaraamam fii zalika ci loolee wa in taraka ndem bàyyi na ko it fala xaraja kon dit bakkaar bi ca nekk daa wax ne nag baaraam tànk yi moom ni ko yàlla binde dafa jege su fekkee diggante baaraam bu ne moroom ma raxasoo ko da nga ko bàyyi noonu du wàññi dara waaye sopp nañ ko nga def ko maanaam sopp nañ diggante baaraam bu ne moroom ma ci tànk yi nga xalil ko toppatoo ko bu baax loolu ngëneel la te loolu kat bu dee ci jàpp la waaye bu dee sangu farata moom faaw day aajoo nga xalil baaraam tànk yi kon na nga ko teqale foofu moo tax mu teg sax wat taxlilu xalil ga ab yebu moo gën a teey li naf si ñeel bakkan maanaam xalil gi daal lañ gën a taamu moo gën a baax wa yaaru ko te muy ragg xaqi bay yaari testanam ya wa awraqoo bay ak yaari siisam ya nee na nga farul nag ci boo dee jàpp bul bàyyi fenn ci li nga war a ragg tistan yi na nga moytu di jàpp bàyyi dara sam tistan loo xam ne raggoo ko ak siis yi siis yi mooy fii may wane lu mel ni fii na nga ko na nga góorgóorlu bu baax ba nga xam ne foofu yëpp da nga ko raxas ba mu set wamaa loo xam ne sax laa yaakaaru du xaw maanaam du jege yu daaxilu fa di ko dugg almaaw ndox ma bi sumaxatin ci lu gaaw min jasaawatin ci ay añ jaaw aw suqooxin wala ay xar-xar fal yu baalix na ko jotal bil xarki ci ragg ga maxa sabil may ànd ak sot ndox ma biet yi ak loxoom nee na foo xam ne fii ndox du fa gaaw a àgg ay niki ay ancaaw yi mu wax ancaaw mooy fu def ay taltal ay junni junni ci yaram wi la koy waral na mooy kooku ñàkk dund dund bu baax nit bu dund dund bu baax xëy na yaram wi def lu mel noonu ay gëgëstal ak ay xar-xar wala bu dee ko amee lu mel ne xeetu ndoxum cité yooyu kooku na góorgóorlu bu baax ba tànk yi fu ci am xar-xar yépp rek ci yaram wi na ko bom bu baax a baax fex ba ndox mi jàll ba ca biir fa innahu naka lay mbir moo di jaa adik na al asru addis ba te dane waylun toskare lil anqaabi ñeel na waroom fistan ya baa ñeel na waroom cat ya dina naari ci sawara di tax mu ne war ngaa sàmm bu baax kat li nga war a ragg dara bañ caa manqué mooy aljubra yu dëkku koo xam ne bu dee jàpp day sàggan ba tistan wa am lu ca des bañ a tooye ndaxam sax du tistan wa dong waaye ba ko yonante bi wax daa fekk mu gis ñoo xam ne dañoo sàggan ba ba ñuy jàpp seeni testan am ca lu tooyut nga xam ne kon anqaab ay cat rek lay firi yóbbaale na mboolem cat yi cër yu ci des nga xam ne kon daal képp kuy jàpp mbaa muy sangu farata war naa góorgóorlu ba bañ a bàyyi fenn fenn ndax fu mu ca bàyyi rek tooyut bu ko yàlla jégalut boo tuut sawaraa koy fecc ni bu ëllëgee moo tax mu teg ci wa xaqi bu shey xaqi bi dara tarafuhoo mooy catam la wa axiruhoo tey mujjam ga maanaam anxaab ji mu wax day ab lim benn mooy xaqib te xaqib cat rek lay firi gën a firi test nga xam ne lu mu man di doon rek cat la des na ko wooye xaqib kon nag ku man di laab ku ne na farlu ci bañ a bàyyi lenn cat ci ay cëram bañ a bàyyi fenn ci ay cëram na fépp tooy te loxoom àgg fa summa yaxsilu topp dana raxas al yusra tànku càmmooñ ba mis la zalika kem loolee wax na ni muy raxasee tànkum ndeyjoor mu nekkoon nag bu noppee teg ca tànku càmmooñ foofu nag fa la njàpp may yem walaysa tahdiidu xasli axdaa'ihi déet limité raxas cëri njàppam talaatan talaatan ñett ñett bi am rin muy mbir moo xam ne laa yu gisoo du doy duunahoo lu ko yées walaakinnahoo waaye moom nag ak saruma mooy gën jaa bari la nga xam ne yuf xalu def na ko def buñ ko nee booy raxas sa kanam danga koy raxas ñetti yoon booy raxas say loxo raxas ko ñetti yoon mu ne néew nu kat ñetti yoon yi mënta ñàkk axakay mën naa ñàkk su fekkee boo raxasee ñaari yoon rek mu set te doy kon du jar ngay jàll ci raxasut ñetteel raxas benn képp yam ci nag moom dañoo wax ne boroom xam-xam bu teey moo ko man te mu mat te daj kon nag bu néew néew saye boo raxas ñaari yoon waaye daal teewul moom toog nañ ci ne bu raxasee benn yoon te mu daj te set yoonu ñaareeloo ngëneel la yoonu ñaareeloo itam bu fekkee moom mott li raxas bu njëkk ba ba mu mat te daj kon yoonu ñetteel ba mooy raxasu ñetteel ba ngëneel lay doon nga xam ne kon raxas bi ñëw te matale rek ba ca topp ngëneel lay doon ba mu ngay àgg ci ñett ñett nag moom mooy yemukaay ba wëre su koo weesu kenn du raxas ñeent yoon ba juróom ba lu ko ëpp moo tax mu ne woo man kaan ku nekk yoo ay bu di matale bi àqal la ci lu yées min zalika ci loolee ajji za ahoo mu doy ko su fekkee mën ngaa def lu yées ñett te du tee mat te daj waaw kon su boobaa loola baax na isa axkama ndeem xereña na daalika loole maanaam bu fekkee def na ko defin bu baax a baax te loolu yées ñett ni ki benn mbaa ñaar koy jaanam wàcc na waaye nag walay sa kullu naasi déet képp ci nit ñi sawaan ñi way yemoo fii ihkaami zalika ci xereña loolee waaye nag ñëpp maasi wuñ ci mën a def lu yées ñett te du ko tee doy te daj waaw li ci ëpp daal moom def gi ñaari yoon gën gaa néew moo gën a wóor ni ma ko waxe woon léegi ndax ñëpp maasi wuñ ci mën a def rek benn mu daal di doy te daj waqad qaala wax na rasulullah yonente yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man tawadda ku jàpp fa ahsana te mu rafetal al wudu a njàpp ma tuma rafaxa toog mu yëkkati tarfaxoo jisam ba ila sama jëm ci asamaan fa qaalate mu wax ne ashhadu danaa seere ne annaka lay bir laa ilaha amul benn buur illa allahu ndara yàlla waxdahu moom rek laa sharika amul jenn aji bokkaale la wa ñeel ko wa ashhadu te danaa seere ne anna muhammadan naka muhammad abduhu ab jaamama wa rasuluhu tey ab yonanteem futixat kon ubbeef la wa ñeel ko abwaabul jannati bunti àjjana ya attamaniyatu yadi juróom-ñett yadxulu dana tàbbee min ay xaaca bu mu ca ñoom chaa soob na ko mu ne addis ba nee na ku jàpp na nga xam ne moom lañ ko santaanee nga xam ne andi nga farata yi andi nga sunna ya andi nga ngëneel ya te it sa yéene selloon na yàlla rek tax nga doon def nga jàpp àggal nag daal yëkkat say bët xool ca kaw nga xam ne bu fekkee ne dangaa nekk ci biir ab tabax mën laa seen asamaan du tee rek nga xool moom ca kaw yëkkat say bët xool ci kaw daal di wax nag ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nee na ku ko def yonente bi nee ñu ubbil la juróom-ñetti bunti àjjana yépp te bu la ca neex ngay duggee waxad istahaba sopp na baadul xulamaa yi leen ci way xam ñi an yaqoola mu wax bi isil wudooy ci gannaaw njàpp ne allahumma yow buur bi ijxal ni yàlla nag ma def mina tawaabiina ma bokk ci tuubaa kon ya mooy tuubkat yi nga xam ne suñu defee bàkkaar daal di koy tuub fa saasa wajxal ni yàlla nag ma def minal mutatahirina ma bokk ci way laab ña ci bàkkaar yàlla ma boole ci ñi nga xam ne dañuy set ci bàkkaar wecc mu ne leen ci way xam ñi dañu saa yu ko waxee rek ibnu habib la ci jublu moom sopp na ku jàpp ba noppi nga wax allahuma jaxal nii min attawaabiina wa jaxal nii min almutatahirina des na ci loolu sax wa jaxal nii min ibaadika saalihina moom boo gisee ni mu ko waxee daa mel ne ibnu habib moo sopp loolu ndaxam ndaxam lii mu wax de ñëw na ci addis ba noppi teewul mën a lenn ci way xam ñi te addis ba at-Tirmizi nettali na ko nettali nañ ko muy marfon nettali ko itam muy mawquuf waaye nag daa am yokk ci wet am wàññi ci wet nga xam ne kon daal daanaka hadis la boo xam ne dafa def li ñuy wax iddu tiraab dafa xaw a baj-baji mooy bari anam bari wuute waaye teew daal moom jàppal ne moom ñëw na ci hadis moom tamoon da ko askane rek Ibnu Habib saye boo jàpp li gën a wóor nag mooy sopp nañu ku ko wax ndax hadis moom bu fekkee xaw naa doyadi ci càll la mbaa beneen sikk am ca it waaye téewul day tegte ngëneel ak lu baax rek moom ñu baax ñoom dañ koy daldi jëfe lu may nag nga xam ne daa doyadi lool lool ba àgg ci lool lool li fekk àggul foofu daal moom tey tegte lu baax rek ñu baax ñoom dañ koy daldi jëfe kon boo jàppatee ba noppi ba wax ashhadu ji waxal allahumma ij'alni min at-tawwabina waj'alni min al-mutatahhirina nga dolli ca waj'alni min ibadika salihina yàlla yàlla na ma boole ci ñi nga xam ne buñ defee bàkkaar daal di koy tuub fa saasa boole ma ci ñay set ci bàkkaar wecc wecc boole ma ci sa jaam ñu baax ña waye ji bu dana war xale yi ci mukallaf an yaamala mu jëf amalal wu dooy jëfi njàpp ma ihtisaaban ngir sàkku tuyaaba lillahi ñeel yàlla taxalaa kawe na limaa ngir li nga xam ne amaraho digal na ko bii ci moom yarjoo dana yaakaar taqabulahoo nangoom nga wa tawaabahoo ak yoolam ba wa tatxiirahoo akuk laabalam wa tatxiirahoo mina dunoo bi ci ay bàkkaar bi si ci njàpp mi nee na mukallaf bu bëggee jàpp na seelal yéeneem fas yéenee jàpp ngir yàlla rek rek yaakaar ci yàlla nangul ko fay ko ca tuyaaba setal ko ci ay bàkkaar ni nga xam ne moom la setee ci njàpp mi ci ay cëram ci zahir wayu shirute mu yëgal nafsahu boppam ne anna zalika naka loolee ta'ahubun ak waaj la wa tanabdubun te ak set la li munaajaati rabbihi ngir deyaaleeg boroomam wal wuquufi ak taxaw ga bayna yadayhi diggante yaari loxoom maanaam taxaw ci kanam boroomam rek la jublu li adaa i faraidihi ngir joox ay farataam wal xudooxi ak ngir toroxlu loo jëm ci moom yàlla bi rukkooxi ci rukkoo ba wa sujjóori ak sujjóot ba fa yaamal te muy jëf xalaa yaqinin ci kaw wóolu bi daalika ci loolee wa taxafusin ak wattandiku fii ci moom fa inna tamaama kulli xamalin naka matuk jëpp jëf bi xos ni niyati nekk na ci rafetu yéene ja fii ci jëf ja nee na boo di bëgg a jàpp da ngay fàttali sa bopp dool lee xamal sa bopp ne ko lii ngay def kat muy njàpp mi waajtaay la wooy def ba bëgg a set ndax mën a taxaw fi kanam sa boroom jaamu ko toroxlul ko màggal ko ci rukkoo yeeg sujjóor yeeg lana mel su ko defee kon balay tàmbali na am wóolu ci ne sellal na yéeneem ba noppi nag mu boole ca wattandiku bu baax a baax ba dara luñ ca taamu wut ci njàpp ma bañ ca am te lépp lañ ca taamu am ca ndax jëf moom bu ci yaar yi tasee muy ka koy def yàlla rek tax mu di ko def tey defe na ko ni ko yonante bi santaane na mu ko indee yaar yi bu tasee ci jëf rek nangu rek ci topp insha allah alis ba daa wax ne téemalee na xibaar li nga xam ne ci la yàllay farey ñaawteef di ci yëkkate ay daraja mel mel nañu ne ko waaw mu ne xanaa